allo allo allo. ma ne. leader yaa ngi ñëw. def leen ndànk ñu xaar leen. bu leader yee ñu bàyyi leen ñoom ñu taxaw ci kanam ñu topp seen ginnaaw. waaw ñoom ñu ngi ñëw ils sont en couleur. Juste pour des photos ou bien Non, non, vidéo. Vidéo, hein Il y a, y a, y a Ces bandes sont habiles. Dieu est en train de les massacrer. Ce sont des gens que Dieu est en train de massacrer. Ils sont venus le peuple blanc. Thank you. leen yàq marché justice Okay. yaa xam. ñëw leen ñëw leen nii ñëw leen fii. taxaw leen taxaw leen taxaw leen heure bi jotagul. bu leen dem bu leen dem. bu leen dem bu leen dem heure bi jotagul kaay bu leen dem bu leen dem. yàlla kii la ñu wax Karim Wade la ñu wax Karim Wade la ñu wax waaw dëkk bi sonn nañ dëkk bi sonn nañ a plus d'eau maintenant. Il n'y a plus de d'eau. Maintenant, je aux imams qui étaient là en 2012, qui ont contre la coupure d'électricité. Où sont ces imams-là Parce qu'ils sont, casés, ils sont casés maintenant derrière Macky Sall, au palais, pour sonder le de Macky Bon, Alain Goundiaï, on peut pas accepter que Alain Goundiaï organise des élections ici au Sénégal. Parce qu'il a montré ses limites et ses failles. Un ministre de l'Intérieur, ne doit pas partir, ne doit pas faire partie d'un parti politique. Aline Gounia a montré ses limites. Donc dans ce cas, nous demandons pour simplement de dégager qu'il sait ce pays-là. Thank you. Hello, Balkan. Yeah, hello, I'm here. Hello. Yeah, hello, Babakar, I'm here. I'm here, I'm here. xoolal xoolal xoolal fii xoolal fii xoolal fii xoolal fii. réew mi. say say say neex nañ. Dóor ma rey ko Dóor ñaar la ñaar la maa ngi jël beneen. yaa ma gënal yaa ma gënal